sabulu son bi. sama grand Matar Gueye moo ma yónnee. waaw waaw waaw mu nekk lu nice quoi. ci loo waaw sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah sant bu baax. naka Thiès. waa Thiès mu ngi nii rek comme di neex. waaw mu ngi neex moom vraiment. waaw. kañ nga Dakar. Ndakaaru gëj naa fa mais xam naa samedi ci kàttanu yàlla dinaa wàcc si terrain bi. <laughs> andi Matar may mu bëri si quoi. waaw ñaari mbër andi Matar ak Boy Niang bu Thiès. waaw ñaari combat lañ ci am. di ñaan yàlla mi yor ndam yàlla nañ suñu borom bi yow foo toll actuellement nii saison baa ngi jeex te kenn déggagul Modou Anta ci dara. waaw Modou Anta mu ngi ci li mu war a nekk rek toog di xaar yàlla bu yàlla tuddee ni dinañ bëre ren dinañ bëre eh, bu ko yàlla tuddul rek. nekk ci waar wi rek xaar yàlla. fi mu ne xel mi ci kan la dem. xel mi moom ci ñëpp la dem Modou Anta tey tollatul niveau boo xam ne kii wala kee ñi fi nekk ñëpp te amuñu combat samay adversaire lan. Malick Niang amul combat. Malick Niang baax na na ñëw comme gars koy wóoy ba léegi ndax kuy muy sànni na ñëw man bëgg naa. yow mi yàgg Malick ma nga de Modou Anta. na ñu bëre ma ak moom. njool la de. waaw garaaw loolu sunu kanam la nekk waaw. Forza bu Fass mu ngi fi. non Forza moom suma grand la. waaw kooku lamb boolewuñ ma ak moom. ñun ay adversaire quoi. Papa Sow. Papa Sow moom mooy moytu waaye man moytu ma ko. na ñëw ma boole ko ci lim bi. li waaw maa ko wax. géejawaay nag am na ñu fa nekk de. kan moo fa ne. guy gi la dëkk. non guy gi sama grand la ñoo bokk région de Thiès. gis nga mooy loolu quoi. waaw kon daal su ma la déggee. mais mais mais sen 2. kan Tyson 2. non Tyson 2 moom du sama adversaire moom. laam boolewul ma ak moom. lu tax non laam boolewul rek Tyson 2 du ma bëreeg moom. da nga koo raw dama koo raw Tyson 2 dañoo bokkul niveau yi bokkul ma ak Tyson 2 du combat. bariwul ay défaite de. non du loolu mais Modou Anta Tyson 2 du combat. non non du combat. Siteu tam amagul combat. kan Siteu. Siteu ay mbokkam duñ ko conseillé mu jël ma loolu waxoon naa la ko te dinaa ay mbokkam dund ko bëreel ak muuru Anta damaa xam loolu. Feugeuleu moom nee na boo ñëwee balaa ngay waxu Siteu mu jàngal la bëre moom. Feugeuleu du ma moroomam su bëggee bëre na bëre ak laay goote bi mooy moroomam man du ma moroomu Feugeuleu dama koy wax rek pour wax ji jeex man du ma moroomam waaw. mais lamb ji actuellement noo ko gisee nii. non lamb ji moom nice actuellement nii nice waaw nice moom vraiment lamb ji neex na trop moom xaj na nag saison bi. bon élection yi ak koor gi coupe d'Afrique bi yooyu da koy xaw a yàlla baax na quoi bi suñ mu ngi sunu kanam daal affaire yi mu ngi sunu kanam ñun daal ñu ngi toog di xaar yàlla. kontaan ci yow. ah. les mu ngi fi. no les deux non non les baal mu jàll. waaw waaw bëgg ci yow. waaw kontaan jërëjëf jaajëf.

ambulance woo naa la woo naa la xanaa lii